baxdal xasbala wa baxdal basmala wa baxdal xamdala wa baxdal xawqala mbàkke noo ngi jéggluwaat ci yii di xew xam nga lépp dafa ànd ki sew-sew waxal nu ci réew mi yow lan ci yaakaar te sa dëkk bi daa bokkul ak Dakar muy Touba la nga ca wax ci Matlabul ni dafay maye sans detu daare nii ñi cosaanoo Touba ak ñi texu si nan yër Matlabul Fawzi moo di solo si ku tedd ki rik Mbàkke dimbali ñu dana doye rekk waaye yërëm nu lompañ a tax sunu muñukaay di jeex waaye taxul nu bëgg naan ndox mu téex waaye bu dee Tuubaa daf nu koy jaral Sëriñ Muntaxa nag nu ko bégalal te waa état bi nga fexe ba ñu soppi te jox Tuubaa gëddaam waaw na ma ki soppi moo ci tombe rekk moo ci tombe rikk kon na soppi waaw fu soppi jote rek du ñoo war a soppi Macky bonul waaye système bi moo baaxul nde makk sax bàyyi ko lii baaxul te lu xuri makka nag waaw day wokk mbarke ginnaaw ñoom ñaar fu ne yaa fa def barke yow ko tëdd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñii bu dul woon ak li ñu naan taalibe lañ hmm? dañ naan la nañ fi jóge kon duñu sañ a bañ waaye nag ku làqu ceew nuñ koy def ñun makki <laughs> xamuñu nan lañ koy def hmm? yéen a sedd de yéen ñii dëkk réew mi nii ñuy def tuubaa te mu di xolu réew mi hmm. waaw ku ci ñemee dëgg waxal ndax tuubaa mérité woon na nii ñuy def ba booba te nag lu nu def fii itam bu ëllëgee fa man yaamal mitqaala zarratin xayran yara fa man yaamal mitqaala zarratin charran yara loolu waxi yàlla la hmm. te noonu ñëpp ay dee nag waaw te dinañu dekki waaw ñaar yee ci am waaw tukki ak bañ a tukki ñaar yee ci am tukki ak bañ a tukki waaw de moom ku mu jot yow ak foo mën a nekk rek mu fekk la fa hmm. li ma jaaxal nag ñi ne ay taalibe lañu waaw te bëgg a jiite réew mi waaw ñi ne ay taalibe lañ te bañ a jiite réew mi xanaa dañoo bañ tu dañoo bañ tuubaa autonome <laughs> ba tax du ci wax waaye jërul weraxle ndax waaw li ma ko wax réew mi moom faw dana koy seetaat waaw nda wax na nag boroom gu wér ci ay baat mm-hmm. waxtu lay nekk bu jotee day yomb ñeneen ñu ko bëgg a jiite du yomb waaw boroom a ngi waajal ki mu fi wóolu waaw te bu ñëwee du doon ko dee si móolu waaw kooko Touba lay njëkk a wax ay waxam waaw ndax day ñemee dëgg fare rankoñam ay rankoñam Touba ngi jooy Touba ngi jooy te ñu bari yëguñu ko système bee koy xas te kenn yëgu ko egg nañ ci banaan ko yàgg fépp waaye léegi boroom wax ci <laughs> ba ñëpp xam yàkkamtiwun lu taa xam daa yàggul xam na ni waxambaane mooy naan tul yaa man yu leenu kulla taw din shamaqa dakkan lee xaar ku la jaanin bas maqa ko ñëpp mokkal rek ba booba mooy sunu tul duñ ci yorante ay fetal waaw sunu der yi sunu der yi sunu po yi daal mhm. waaw sunu po yi waaw mi ngi ni kitt kittiiral waaw mooy sunu tul du ñu ci yorante ay fetal mhm. xalifa bi moom man de yërëm naa ko président Macky itam yërëm naa ko la waa penku jàppale xalifa bi waa sow yi jàppale président bi Touba d'abord jama waxoon moom laay waxaat positivement waaw te lii de mën naa koo waat kenn mënta tee la fa borom bëgg am te lu jot rek te war a am faw mu am noo ngi yemale wax ji fii ngir yàlla ku ci seetatul yàlla seetal la wasalaamu alaa man ittabaal huda